bokk na ci picc yi gën a rafet ci àdduna bi waaw moom la Jambu Jóob la tudd tubaab di ko woowee pan moom picc la boo xam ne rafetaayam foo ko natt weesu na ko mu taaru lool am ay dunk yu am ay couleur yu rafet seen nom scientifique mooy pavot cristatus ñoo ngi bàyyeekoo ca Inde di peser entre quatre ba six kilos di mesurer lu toll ak un mètre cinquante commencé ko ci bopp bi ba ci génn gi ñoom daw ak naaw da neex lool laaf yi mu am taxu mu mën a naaw lu soli lool mais ci distance yu gàtt rek ñoom dañuy yuux ay yuux yu fort yoo xam ne foo ko dégg xam ne ñoom la ay picc lañ yoo xam ne mën nañ dund ba vingt ans ñoom dañuy soxla espace bu yaatu pour di mën a màgg normalement picc bi balaa ngay gën a gis rafetaayam mu firi dunk yi nekk ci génn gi ba couleur yi daal di génn rafet lool sax am jëmm moom su charme pare jigéen yi la ëpp lu mu koy dunkam yu rafet yooyu tax na picc bi nekk picc bu siw ci àdduna bi ndax soo ko gisee benn yoon dootoo ko fàtte loolu tax na ñu bari dañ koy yar seen kër ndax taaru bu mu taaru ñu bari di ko rëbb pour bëgg ko am ñoom graine fruit insecte jinax ak parfois ay sëndax yu ndaw lañuy dundee soxla bi ko nit yi soxla tax na bu nekk en voie de disparition te mu leen protégé wul dañuy jeex ci àdduna bi